asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar xaw naa am mbetteel ak kersa dama am kersa am mbetteel ci ñaari nit ñi nga xam ne man jàppoon naa ni nag ak lu leen mënti waxal wax dëgg yàlla njortuma woon ni mën nañoo yegg ba fii nii ojo Aïssatou Diop Fall ak Farba Ngom bi ma ko déggee gëmuma ko woon man dama jàppoon ni ojo bu ñu monté la parce que fi mu koy waxee ni boo ñëwee dinaa la juutal ngeen baal ma ci kàddu gi dafa mel ni ak fi Aïssatou di tontoo dafa mel dafa am lu décalage dafa dafa am décalage mais sànq dama xool vidéo bi jëmmi Aïssatou apparaître mu yore téléphone di wax ak ba mi ngi toog ak ay nit ni attends jékki-jékki ni mi ngi mel ni ku toog si studio parce que am na benn micro bu bu bu nekk ci ci ci kanamam alors euh, téléphone am sonné mais ñi ngi ko doon filmer certainement xamul woon ni moom enregistrement bi mi ngi dem parce que yaakaaruma ni elle est aussi idiote wala nga xam dafa def exprès di di di di woo far ba di ko enregistrer en même temps pour am ci moom dara en privé loolu mooy faute bu njëkk bi moom nee na professionnel la même bu fekkee dafa bëgg am dara ci Farba en privé parce que ni mu doon waxee moom naan ko doomaraam nga Euh, yaa woyu yaa bon mel na ne am na lu ñu séq ñoom ñaar en privé xaritam la peut-être sañ nañoo waxante loolu en privé mais boo toogee ak ay nit un député du peuple élu par le peuple nekk député quoi honorable député wala nga toog ak ay nit quelles que les personnes ce sont des proches wala nangam ak nangam buñ la wooye waroo def sa téléphone haut-parleur loolu mooy faute bu njëkk bi te moom day bàkkoon ni professionnel la def na formation journalisme nangam ak nangam elle fi directrice des programmes quelque part nangam dara tous vous n'êtes pas des professionnels ay caaxaankat ngeen. am naa mbetteel nag parce que xaw ma woon ni que tu étais vraiment aussi nul parce que nag nit da ngay am tuuti euh, da ngay am tuuti vergogne en fait parce que Sénégal la ñu nekk aussi. fii boo fi uñee sutura nit fii nga taxaw di saaga Ousmane Sonko lu ne nga yegg kooku TFM ba gars yi yóbbu la frigo ba gars yi yóbbu la frigo man j'ai parlé avec une personne en privé ma ne ko mais Aïssatou Diop Fall pourquoi elle na ñu koy ñu koy def lii comme ça TFM le gars li ma tontu vraiment dafa sama xel ñaawoon na ci moom mais confirmation baa ngi nii en fait yéen da di fooy réew mi da di fooy nit ñi di fooy seen bopp. yàlla di leen weer ni comme ça ci kanamu nit ñi parce que dëgguwu leen mënu leen seen liggéey da ngeen di liggéey di tricher liggéey àndul ak tricherie il faut être honnête dans la vie il faut être sérieux dans le travail il faut être professionnel dans son domaine mais man euh, Farba duma ko blâmer parce que il est comme il est dans ce qu'il est c'est boo xam ni que fal nañ ko yóbbu ko assemblée nationale c'est un proche du président moom il est réputé nekk nit koo xam ne dafa bëgg ci ay ay affaire u coow ak nangam sangam mais moom dafa doon wax ak Aïssatou Diop Fall en privé Aïssatou di filmer boppam parce que benn instant pousse na caméra bi orienté ko pour nëbb jëmmam ci commencement bi moom apparaître na mais mu enregistré ko mais xamul woon ni lii dina génn parce que bu xamoon ni li ko li ko parce que aussi ñoom peut-être dañ et ça c'est dangereux attention ay satu juum nga def nga yëfu dof def nga yëfu seytaane def nga yëfu naafeq lii daf lay topp ba keroog ngay dugg sa biir bàmmeel soo dee gor dootoo apparaître di génn di joxe ay leçons morales parce que tu n'es pas digne d'une personne boo xam ne da nga war a joxe ay leçons morales Binta jàll moo la gën a am fulla ak fayda parce que am na fulla moom dem na démissionné na te fii nga toog ci ci ci ci télé bi di ko xas naan Binta Diallo nangam sàngam après mu woo la en privé wax la nga génn rus taxaw di wax te nee nga moo la formé et alors Binta Diallo instant bi fa mu toog rus na am na kersa ay satu récemment lañ fi agressé sa benn consoeur Maimouna Ndour Faye agressé ko jamate ko ay paaka yow nga toog di wax ak un député di peuple honorable député toog ak ay nit mu woola nga haut-parleur ko ba pare di ko enregistré yàlla weer na la parce que moom dafa xam ne yaa ngi koy enregistré on au Sénégal fii ñu nekk nii jamono ji ñu nekk nii kenn dafatul li ñu xam nañu da nga jàll xamoon boo xamoon ni day génn doo ko def aussi danga nga bëggoon weer nit ki yàlla weer na la